أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم mu mel ni ci gàttal yëf yi xaw naa naaj te sëñ bi yàgg na ci jataay kon li alxuraan di wax ni waa atul buyuuta min abwaabihaa mu jaaraale sunu siyaar ci sunu ñaari bunt buntu kër Seydina Aliou Kan Karamallaahu wajhahu bu Cheikh Souleymane mi toog yàlla di ko dëgg a indi ci buntu kër gi yàlla yàgg tamit ah yow ak sang yow de a suñu kilifa dañuy tuddee xalifa général vida, fica sem sëñ Mor di Cheikh Mouhamadou Dia amee sëy naj lu sëñ Mor Dia liggéey kat bu xaar yoo xam boobu amoon Cheikh Ibrahima di siyaar maa ngi den ndak saraki bopp ji di Cheikh Moustapha di ko siyaare ndax jàpp naa ni ci waatu wàllu rakk moo ci sës fii waaye di siyaar sa njabootu bopp dale ko ci xalifab sëriñ Momadou Dia yalla yalla doli leram Cheikh mustafa ak rakam yep maa ngi di ziaré di ci ñaan digal di ziaré khalifa Serigne khalilullah Lahi mok mook ñun nekk ci ginnaawam di njabotam lepp di sa njabot di ziaré khalifa Cheikh abdallah Dia ak njabotam yi mu andal nek sa ginnaaw di siyaar itam khalifa cheikh mossa Dia mang koy jéggulu ndax mang gi jaar ci wetam ay yon rek te teggi wut lolu waye jataay bi la di siyaara seigne mustapha mi nga xam moy defana moy naa ne mooy magisit yëpp sëñ Moodu sëñ Moodu seigne Moodu wa seigne mustapha seigne Moodu waaw lay siyaar ak mboolem ñek sa ginaaw di sa ay rek di siyaara xalifa sëñ Abdou Boussa ak sëriñ Mamor ak sëriñ Saliou Dia ak mboolem koo xam ne yaa ngi ànd ak moom ba yëf yu tàmbulee gul ba bi mu tàmbulee ba fi nu ne maa ngi boole yooyu yëpp ja muy nuyoo sëriñ Souley mii di ko sa loxo di nuyu itam nag kilifa yi fi teew. Cheikh Moustapha Mbacké moom Serigne Mansour sa coono barki démb ca armeel ya ak barab bii waxtu wu dajeel jotee min na la noo ngi lay siyaar bu baax Mbacké di siyaar Seexul Xadim satub maam Cheikh Anta sëñ Mor Mbacké ak mboolem ñoo àndal teew fi di siyaar sama sëriñ mii toog. Moustapha Mbacke sëñ Moustapha Mbacke. sëñ Mansour Mbacke. sëñ. Moustapha Mbacke waaw. bële la waaw sëñ Alpha Ndiaye. sëñ tax xam ma la Ndiaye. maa ngi lay siyaare mu teewal fi waa kër sëñ Mor Ndiaye daa bay yëpp. ak ku ma féete nii rek tey borom cër. maa ngi siyaar kilifa yi toog. teewal fi maam Cheikh Reme Fall lamp bal muridin sëñ Mbacke Fall. suñu sëriñ suñu xarit suñu wëlëré sëñ asan mom sëñ musa sa jabot ngi tok ni sa wet démb njabootu sëñ Seex Ngunda lo and mbir mi ba jant bi so kenn desut di siar notable yi musale maire ak ñinga andal di len jox seen way wa di siyaar wa keur sëñ Boudou Ablaye Fall ñoom lu ne leen ci kër gi seen njaboot a ngi fii sëñ da yor leen sun njaboot a nga foofa ci ñoom barki dem bu xalifa sëñ Mourou Ablaye ñoo bokk jullee ci mu ngi leen di siyaare bu baax a baax. sëñ Ablaye Seck mu sëñ Thiana. di siyaar waa Thiana ba sëñ Ablaye Seck. mu sëñ Souleymane ak waa Thiana ga yëpp bàyyiwunu kenn ak koo xam ne sa bët eggul ci yow wàccuwaay bi nga yor kër gi nga teewal bàyyi sëñ Souleymane nee na mi ngi lay dalal mi ngi lay siyaar te mi ngi lay nuyu mbooleem ko fi teew nag ku ne waa kër sëñ Cheikh Khady Gueye daara waaw kay sama mbokk bopp sama xarit sama wólëre dañ maa joxagul mbubb nag moo tax ma tëboon leen waaye maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax sëriñ Alaaji Fall moom sunu baay Cerno Fall sunu baay sëriñ Fall noo ngi koy siyaare moom tamit ak ñi ma àndal ñëpp waa kër sëñ Ousseynou Touré ak mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoo nekkoon ci ginnaaw sëñ ja te seen njaboot teew fi bàyyiwunu kenn góor jigéen mag ak ndaw nuyu nag gan ñi. doomu sëñ Masamba Dia waaw. nu ngi koy siyaar moom tamit di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax. mboolem waa tund jaayantal jàmm ak li ko wër lépp wala sax waa Sénégal wala waa àdduna ñëpp nu leen di siyaar ku téewul fii rek yaa ngi jokkoog noonu tey yàlla yàlla defal ñëpp jàmm ak tawfeex ak sutura barke Xaadim Rasuul barke Maam Seex mu mel ne nag dafa xaw naaj te yitte yi bari te tiitru bis bi tiitru bis bi yëpp daanaka mooy teewaayu sëñ bi ak li ko tax a jóg la ca suñ dénkaan rek la nun waa kër sëñ Aliou Kan bu ñu dawalee sunu xel jërul sori gannaaw xaadimal Mustafa yoonu suñ borom bu ak addunaam saxaar la buy daw du taxaw passage yi mooy jaami yàlla yi ko egg sa gaar bu sufur ba eggee wàcc سن برام جيل بنين سفر جوحكو سحر جي كنت واي سحر جي تحو لب خارب المصطفى لب خارب المصطفى بامي دم تجي جان تكين بامي بسي موسي دو كونه مام سارا فالك كيرا وره واي برام تبا ركا واي لمن من من دولنا امين نفسان ست لا واتي تي غاربي جوحكا بي سيح مدو مصطفى مو كنت نكو 18 ans après mu doon waate ci gaar bi jox alaaji Fallu Mbàkke mu joxe caabi Cheikh Abdoulahi Ahad mu continuer ko ñu dox tuuti ba def naa 88 89 mu doon waate ci gaar bi jox sa Abdou Xaadir ñu dox diir bu gàtt mu jox Serigne Saliou barki dem boo Njaay ñoom ñëpp ñu wàcc saxaar gi joxe sa yi keneen jàll loolee leen jàpp nag ñoom moo jàpp kër maam Cheikh moo dugg kër sëñ Mor Dia kii fi fii ne ni mooy dawal ku dugg mu yóbbu la ko sa wàcc jot nga wàcc looloo fi ne barki dem bu ginnaaw sëñ Mor Ja ñëpp jaaxle woon nañu sëñ mu doo jël saxaar gi daw moom at yu takku at yu takku ñu war a wàcc wàcc ba mu waree gaare daa gaare jox sëñ xàlla bu dawal ci biir àndu sëñ xàlla client yi ci wàcc bari na waaye ñuy dox ba mu si moom mii nekk ci kanam cabine technique bi yor wala bii dawal yàlla nga gudd fante yàgg fi waaye ku wàcc keneen jël looloonu gaar bay sëriñ Mor mi en 1975 sëñ Aliou kan wàcc saxaar gi jox ko ko 46 ans muy aradu wali yi mooy dawal ba barki démb moo jox caabi sëñ Souley nangu nan ko su ko yàlla namul woon doo fi ne su ko namul woon doo ko tal su ko narul woon duñ ko fekke buñ bëggee jàmm lu yàlla samp ni moom la nan neex kenn ku la préparé amut kenn ku la teg fii amut du jàmbaaru kenn du yafuusu kenn mag mag gi nu mag du sax njàmbar rak gi doon sàkk du sa yaafus yàllaa ko soobee noonu foogunu la woon sun tànk yi moo gën a saf saf tànk ci penc bii yàlla ne la cas denc la moo xam lu tax barki dem bi nga ne jurub ci penc yi ni mbaa xalifa sa yàlla yi waaw rek laay wax yoonu sëñ Tuubaa ku mat toog ña ca des topp ca ku yàqu foofu rek la affaire bi nekk xam nga lu xew maa ngi ñaan sëñ muudu rek ñu jàppale la ci liggéey bi nga may ma tuuti bay su lay wàccal fii ta baal ma su mi sama xana jëbbal joxal sa bopp jëbbal ci ni jamisé jëbbal naa sama aduna ak alakhira loo digal ma def ko loo ma ma amin nangu ñaan ya ko ko amam digal tok ci